ci ngeen jëf mbokk Sénégal mbokki bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen ñi ko siifur lamb actualité lamb te di ko siifur ci télévision bu mag bi nga xam ne moo di Bawal TV lundi le 5 juillet ci atum 2021 ñu xëy ñëw ak yéen ci sunu sunu lamb fekkati bay affiche yu am solo Moussa Ndoye Sos ban a xam ne ni moom moo di Sambay am na lu ko métti la ginnaaw ba nga ne tëgg na lamb ci journée bi mu ñi nga xam ne ñoom ñoo di collègue promoteur bi ma sax moom moo di boo mooy tul mu démissionné waaye forme bu doy waar bi nga xam ne moo jaaxal gaañi confiance beeg assurance bi ki nga xam ne nii moom moo di Bombardier doomi Mbuur ji journal bi xëy bind Bombardier plus dangereux que jamais loolu la journal bi xëy bind waaye kii di ki xam ne nii moom moo di day combat ba yàggul 41 secondes journal bi xëy bind na doole doxul jàmb combat entre vieux ak mag moom diggante double Tyson ki nga xam ne nii moom

ci atum 2021 la boobu le combat Balla Gaye de ma ngay entraîné bu baax a baax li nga xam ne nii moom moo di lit ak li nga xam ne moom moo di MMA ba Adrien Senghor sélémene battre xam ne nii moom moo Gaskel waaye saison terminée le journal bi xëy bind pour ki xam ne nii moom moo di de Guiers 2 le penseur di Waalo waaye ki xam ne nii moom moo Sambay Fall doon décoré ki nga xam ne nii moom moo di Papa Sil Balde ñu ñaanal suñu borom yërëm ko te xaari Kajoor numéro 2 rassuré je vais bien ma alhamdulilah la wax moom Sa Kajoor lu wakkutul dërëm xuriw ko waaye bu ñu demee fi xam ne nii moom moo di ci la moo xam ne moom moo di Jules Baldé la muy laaj moom moo di ki na rongo ji Gris Bordeaux ki xam ne nii moom moo Abdou Diouf ci Issa Diop bi ba mar Diop journée bu rëy ba journée bu am solo ba di journée Assane Ndiaye Bawal production doxoon ci di Mbaye Gouy Gui ki nga xam ne nii moom moo di Mame Balla day Mbaye Gouy Gui da xam ne nii moom moo di ba pare daan ko moom Mame Balla moo daan yóbbuwaate top 5 waaye ren jii moom la ñu yóbbu top 5 ka def lu ni mel mooy ki nga xam ne nii moom moo di Mbaye Gouy Gui di doomi Bawal koy seetaan lamb bu ñu demee fi nga xam ne nii moom saw la bu koy xamal moom moo di Siteu waat naa de te bu jour ba dama lay daan waaye Siteu la mu ko xamal moom moo di papa danga may xajar rek ma jàll sinon ma agressé la jël ndam ni dem moom jàmm gan yéen ñi ko suivre ci télévision bu mag bi nga xam ne moo di Bawal TV tuddee kenn bu ma topp waaye ku jooy dëpp lekk dale Thiès xombal Bambey altundangal maag kër dama kër sel jaanunduraak patar kër ibra yaa seen sambe gewel sambe koyol dalaak taaru xaboor siyaare sëriñ ba delluwaat jàll ngaabo caycaate gi nag njongol ol toon marte jurup fisel mbaadaan Louga Ndar Tiwaawan gaay jërë ngeen jef